الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الطاهر الصفي الأمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين فإن هذه الليلة الغراء مخصصة بسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله سوف ندعوه بأحب أسمائه قلنا يا رسول الله ولدت في مكة المكرمة وأنت خير مولود فيها ودفنت في مدينتك المنورة وأنت خير مدفون فيها وفي غيرها من عواصم العالم ولدت في خير بلد ودفنت في خير بلد وبينهما خير مال النبوة والرسالة من أسد وبينهما من أسباب العز والكرامة ما جعل الإنسان يحيا في الأرض وذكره في السماء يا رسول الله جعلت حياتك مثالا لكل من السلف والخلف الخلف فيها مأمون والسلف فيها ميمون وأعطيت لكل فرد من أفراد الجنس البشرية حقه في الله وحق الله فيه وبهذا قدمت الروح أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب فيل المنير bokki jullit yi fi teew ak fu kaddu gi yegg ñi ngi boole ñépp nuyoo ci nuyu lislaam di jégglu ci retard bi waxtu dafa xat ba niroog jaas yi boo ci daggul waxtu wa dagg la nuyoo bii ñu nuyoo ak ziyaara bii nuyoo sunu sëriñ bii toog la ku baax kii te yiw Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Hadji Mansour mu Cheikh Al Hadj Malick nuyu kilifa yi mu àndanteel ak kilifa yin fi fekk nuyu waa waagu ñaay ak waa HLM ak fu ñu mën a bàyyeekoo ci mboolem couche peuple bi bàyyiwuñ ci kenn gàmmu gi bañ ko yëkkatee dañ ko jombali ñëpp jagleel ko ki jagoo gàmm bu dee sayyiduna Muhammad moom képp moom ngay toog ci biir nit ñi ni leen moo gën seen bàyyi ñu kontaan moom képp moom ngay toog ci biir jullit yi ni leen kii may wax moo gën seen bàyyi ñu kontaan ba làmb seen poche jox la keneen koo fi ni moo gën seen bàyyi am nañ ca duut wax ji dootul gudd bari na lu may wax naan wax jeex na tàkk waxin rek moo fi des te lam bi wax kenn dootu ko ub lam bi wax ku gàtt xel ba defee ni mën nga ko ub xamatoo dara ci bind waxkat yi wax na ba noppi muy yàlla kam doon wax loo wax na ba noppi lam bi wax tëj na kenn dootu ko ub an an rek a fi des diw jële na ci diw diw jële na ci diw ñett li waxi jàmbur Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh ne jaru réel kaala soxlawul su ma nee maa ngi nuyu kilifa yi maa ngi ci namm ñëpp nekk nit doy na kilifteef nekk nit doy na kilifteef xamuloo ni xéewal yi bi ci gën mooy xel muy teey waa xel muy teey bay wàccu moo gën ci xéewal yi waaw ku sa xel di teey dafa fekk ngay nit dof du wàccu bu doon wàccu doo añ ba noppi tuur ci poofel bi mu ñëw di ca añi kon xéewalug nit mooy tax ngay wàccu dof du wàccu di ku ci mës a romb dof buy wàccu na ma wax nit rek la wàccu moo tax xel muy teey xéewal la xéewal la de mënoon ngaa nekk nit doo gëm diine te ku gëmul diine sa mbaax wérul mbaaxu ku gëmul diine wérul su nit mënoon a am mbaaxu boppam diine génn ci diine du ñëw lii tax a baax lépp sa xel mënu la ko tax a xalaat li bon lépp sa xel mënu ko xalaat yàllaa na naan lii baax na nga def ko mu ne la lii bon na nga bàyyi ko moo tax benn waaye dem na ci benn borom xam-xam ni ko dama bëgg nga démontrer ma julli lan lay jëriñ ci nit waa ji ne ko mën naa la ko wax waaye soxlawul boo feebaree dem ci médecin bu nee sëqatal kenn ko ne lànk na bu nee sëqatal nga sëqat bu nee dugal ci duus bi indi ma gaano waaye nga def mu ne tëfli nga tëfli mu ne téelal nga téel nangoo ko médecin bi gàntul ko yàlla mi la bindoon médecin bi la ni sëqatal nga sëqat bu la yàlla ne julli da nga war a dem julli ji diine rek a mën a defar nit moo tax mbaax gu diine bokkul wérul am yi ba mu jeex am yàlla képp ciy jëriñ li ëpp ci conscience yu jamono nag gëm nañu ne ku la ëpp xaalis moo la gën moo tax léegi si kuy dund booy boo def attention loo ngi dund ci àdduna boo xam ni loo mën a mën a mën a tooñ te yor xaalis boo la yooyee loo jub jub jub te doo tooñ te yoroo dërëm boo demee fa ñuy atte ñu duma la boobu jamono ku ciy dund war ngaa teey moo tax attekat yi ñoo am problème attekat yi ñoo am problème attekat yi ñoo am problème ku am xol di bëgg di bañ ñu ni la yoral maanu te baskil xam nga baskil xam nga teg baskil te da ngaa am xol moo tax ku ñu dénk àtte jox nañ la paak benn ngay rendi bis bu nekk wala nga rendi sa bopp wala ngay rendi di rendi ba dem safara alaysa allahu bi axkami alxaakimin xanaa bi yàlla dana àtte àttekat yi ëllëg te billahi fa ma fi lwujudi taatun wala isyaanun wala ribxun wala jawhar wala leylun wala bayaadun wala sawaadun wala barrun wala baxrun wala shay wala gayru shayin min hadihi almutadaada illa biqabdati illahi wa yadihi topp mooy lu ruy lu way lu ñagas lu nooy guddi bëccëg lu ñuul lu weex géej jéeri lii lépp ku defe ni am na benn millimètre bu ci yàlla contrôlé wul réere nga yàlla te billaahi waxuma dund ba déwén waaye dox ba ci cinéma bi te amuloo gàcce war ngaa wax ni alhamdulilahi rabbil alamin dox jéego te toroxoo yàllaa ci jàpp nan delloo sunu bopp yàlla moom képp moo mënoon a faj soxla yi nit ñi kenn ku ne mu jox la la nga soxla lépp te defu ko moo tax ku fiy dund war ngaa seetluwaat xamuloo ni kenn taxaw ñëpp joxañ ko ni ko yow kenn la yàlla doo nga ko jagoo woon te may ko boppam waaw lu yàlla xañ boppam nu ko nit di bëggeeti moo tax sunu góor bu baax ga sidil xaaji mansour radiallahu anhu takkal nañ ko fas mu jëm barab roof tànk bi ci bëñ teg bi ñal ngu fas wi dégg ko wax baat bu safaanoo mu àbb xalima def ñaari way ca kaw ca kaw fas wa ñaari way yi mat na déglu bu ko matee ma wax ko bu ko matul ma tëb góor gi dafa tag ci fas wi dégg ku wax kàddu bu ñaaw jëm ci barab mu ne ah imal li nafsika saalixan laa taxtafil bi zuhuri qiilin fi lanaami wa xaali falxalqu laa yurja ijtimaau qulubihim laa budda min musin alayka wa xaali ndeke koy bu am fulla dem jëfal sa lu baax sa bopp te bañ a déglu jiw nee na ak jiw nee na ndax nit ñi kenn mënul canaliser seen xol yi ci benn barab fokk ñii di la xas ñii di la xus ñii dañu lay gëm ñii weddi la waaye ku dugg ci mbooloo ñuy téeméer juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent yëpp bëgg la kenn ka lay ngóobee ka ngelaju boo ko geesoo te doo nit def ko muy asaka nga noppalu danga koy def asaka rek noppalu nan yaakaaraat yàlla luñ fi mas a yaakaar tas na kuñ fi mas a yaakaar te du yàlla tas na dafa am benn nit ñëpp sopp ko wóolu ko yaakaar ko lu mu mas a ñaan mu nangu mu xëy dëkk ba mu dëkk maral dangootu la taw ñu seeti ko jox ko hadiya woom ni ko dañoo bëgg nga wax ak yàlla mu taw mu ne ban heure ngeen ko bëggee ban heure ngeen ko bëggee ñu ne ko ba tawoon ci timis ba fajar dana lu gënal kenn du tawte ndax day fekk ñëpp tëdd mu ne kon daañ ko dooree ci timis gi ba fajar ci luñ la daan may rek de digge ci poosu jàmbur ak a wóore di boo cee fekk nag mu ne joxew ma tey nag timis jot góor gi jàpp tur ya amoon li jaaba ca moom yépp bu mu woo rek asamaan si xiinul sax xambaarul melaxul waxuma ak di dann muy ñaan di ñaan ba ñu nodd fajar gisuñu sax njayaxaan mu ne bu bët setee di ci nii ba faf toxu bu bët setee ci nii damay toxu rek ndeke surgaam bi koy may ndox ci satalaam moo gën a kawe góor gi ci yàlla te góor gi yëgu bi surga bi dawalee bëtam gis ko mu ne sagg sagiiral ndax ku dige loo mënul sëgg cay mujj surga bi ñëw ni ko soo ma mayee ndigal ma beesal njàpp ñaan la la sa borom nga bañ a am gàcce mu ne ko loolu soxlawul ndigal ku ko def ma jël soxlawul ndigal koo def rek mu jël téere yi nee ñu surga ba sax benn tànk ba dafa lafañ mu jàpp kabar julli ñaar rakkaa sëlmal tàllal benn loxo bi bi ci des jógagul xiin dagga ca soow xiin dagga ca teg kajoor ak bawal gëndoo mu ñuul kukk ñi li nga am mu daaneel xiin wa fàq sotti ku bay taw kilifa ga ni ñoom ket summi garaam bu ba ni ko xëpp summi mbaxane ba ni ko xëpp ni ko def naa la guide spirituel gis naka tey yaay jiitu ma topp ci yow mi dox sama diggante gàcce gi mu ni ko ëpp naa def njiit yàllaa koy def xanaa xamoo ni bés bu ne nit jiite ku la sut waaye yàlla la soob am na ñoo xam ni daf leen séddee xaalis ñuy joxe am ñu mu séddee xam-xam ñuy jàngale am ñu mu jox éloquence soo waxee ñu dégg am ñoo xam ni dañ ni yàcc jéemu ñu dara dañuy seetaan foo denc ñu seet ba xaaju guddi ñu topp la am ñoo xam ni rek li ñuy liggéeyee mooy ŋàññi nit ñëpp moo bi diw daal alalam ji billaahi du ko sàcc wër naan diw dafa sàcc diw dafa sàcc oh te nga sàcc bopp lu wa jiitul yow la yàlla jiital naa la topp yàllaa ma toftal ci yow te dinaa di wax ni borom cër yi defuñu dara ki séddalee def lépp borom cër yi defuñu dara ki séddalee def lépp ki séddale moo def lépp parce que maa dem ci benn ngénte dégg ñu benn waaye bu rëy gémmiñ jóg taxaw naan yàlla de am na lum tëli naan ko waaye diw loola lu mu mu ne séddale la mënul ma wax ko ba mu ñëw ma ne ko waxal astafirullah yàlla séddalewul day maye lim yore loo ci yeeyoo mu ni ma dara ma ne ko lu ci sa bàyyi moom mu ni ma dara ma ne ko lu ci sa nijaay moom mu ni ma dara ma ne ko boomoo ci côté paternel moomoo ci côté maternel nan nañ ma sédd loo jox cër mu ni ma aw ma ci cër mu ne ko yàlla séddalewul day maye ku ko neex mu jox la ku ko naqari mu xañ la tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alxayru innaka ala kulli shay'in qadirun bokk na ci lim man tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyli wa tuxriju alxaya min almayiti wa tuxriju almayita min alxayi wa tarzuqu man tasha bi gayri xisaab ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله جل الحكم وما إن يقال لماذا فعل
waa ji ñaan na taw na caqali ko wuñu foofu xam nga ñoom ñaar ñëpp lu leen tax a baax ndeke lu la yomb lu ne mën na laa jey góor gi nanguk ñaana ko jey ba mu jige taw te moomul taw waaye gis nga bi yàlla joxee surgaam bi taw bi nangu na ko topp walay wan ni kookot ku baax la waaye xool nga surga bi it bi ñu tawee ba taw bi bare te mu jóge ci ñaanam sa xalaat na ni ko yaa war a jiitu góor gi ne xale bi naa yegg ci wax leen sa daraja ñu moytu la mu ni ko ëpp naa def
mbokk yi ngeen baal na dafa am lu ma jagleeloon sëñ bi ma wax ko rek door a toogaat ñaan gu ma ko beral te duma ko wax kenn ku dut moom sama am sëriñ Tuubaa dañuy wa fitnatin ak fitna wal balaa ak mbas wal araxe akuk lakk maa xaraxin akuk lakk wal baraxe akub melax maa saraxin akub sàcc wal kaddi akub coono yal na la ci yàlla musal man nag ma ne ko yal na la yàlla musal ci mboolem làmmiñ yi nga dëkkal Sénégal li illaa fi pël xorey seen naar illaa fi wolof rixite séeréer sitaa il lawbe wasay fi tukkulóor pël yi hëpp doo bambara rabban saal joola bayti tubaab lesi malgas atam xaasinke min jooyin maa njaago wa amanum sero xulle min xaw fin soose suuratu koroboro neel amin ngeen may nu tuuti nag mani ngeen may nu tuuti ngeen may nu tuuti nag ndax man daa am lu ma daan def te dama ci am njiglaay damaa nawetaani wan moo tax ngeen ngeen maa gis sëñ Mansoor yal na fi yàlla saxal yal na ko yàlla saxal te saaxal ko ñi ma mag man mii ëpp may at ak ñi nga xam ne ñoo ma ëpp at gis nañu ren loo xam ne lii manees na cee takk ku am doom man nga cee takk jur nga di ko wutal kayitu juddu am nawet lanu ca xamoon juróom-ñaar fukki guddi boo béyee suuna di nga ci mboolu juróom-ñeent fukki guddi di nga yëg sa gerte xam nga nawetu ren ñaata la ñu jëkk a sébbulu weer lañu am ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñi mujj a sébbulu juróom fukki fan lañu am ak ñett ku nekk la nga bay nga lekk ci ay sëñ man soo rek la ko yàlla def ab tattangoo wax ji nag du ci bari fu ma ko masaajee gis ak fu ma ko masaajee gis itam dinaa joxe sama addiya te julli lay doon dem ñibbi waaw ndax ginnaaw suraanoo bii junni la kursu ba bii junni làmb ja bii junni te doo ci gis bismillahi rahmaan rahim xam nga ni dumaa ca ne te bu ñeel waaye man ci yonente bi nga joxe fukki dërëm danañ ma delloo juróom ñett teyal ma wax ko na nga ko daan waxee rek wax ko rek man ko daan waxee Ndeye Mansour.
ta ko xamee billahi lu mu bari bari mbooloo ku la joxut ndaw sal mën nga ko xamee dama ne la yonent bi ku mu jaral laa wax ku mu jaralul toogal ak la nga yor Hmm?
dagg ko dagg ko ma dagg ko cin ma rek
am cin ma rek manteer
moom murit la maam Cheikh Ahmed Bamba la yaakaar sopp Seydi Aboubacar si Mansour ba bu ko déggee ba Kaolack day paas fekki ko su ñëwee day génne junni wecc ku ko pari téeméer ni lañ ma tuddal turam buñ ko joxee mu jox ma ba muy junni da ci daan teg nag ni mbooloo mi ku ne dama jox téeméer ma jox ko abib loolu nag maa koy bañ léegi mag sëriñ bi xam nga lu tax xel dafa gaaw léegi waaye toog fële bakkaar ci naan ñoo ko déggoo ñoo ko déggoo moo tax ne na na na joxe addiyaam yóbbu cofeelam bàyyee mag gaa yi ku sa yaram daw da nga ñëw ku sa yaram dawul ba bët set nga ñibbeeg moom ok xam ngeen fu ma toll woon de ah aha kay sëriñ ba ni taalibe bi dinaa yegg ci dëkk ba siiwal sa maqaama ñu wattu la mu ne ko ëpp naa def man li ma yàlla may siiw lay bañ bu siiwee rek ma dem alaxira mu ne ko ëpp naa def de sëriñ bi ni ko kon damay dem alaxira ànd ak yow waaye foog nit ñi dégg ko dem ca dëkk ba annoncé taaliba ba ni ndeke yoote moo ma ëpp maqaama ci yàlla yëguma ko taw biig bi bu dul woon ak moom ci ñaanam gàcce am bi mu daaneele waajee jublu penku tàllal loxoom ni yaa saaxiba sirri inna sirra qad zahara wala uridu xayaati baada ma zahara xam nga lu mu wax dafa ni yàlla yaay borom mbóot mi yaa ko dencoon ci man te ni ma bu mu feeñ feeñ na kon nag bëggatuma dund gannaaw bis bi sama mbóot mi feeña daaneel ruuga rot ndeke am nañu bëgg